salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gaa yi sama vidéo bi pour Birima la Birima Ndiaye barki alxuraan karim Birima Birima ni nga jàppale son excellence président Amadou Ba barki alxuraanul karim bu Amadou Ba président Amadou Ba bu amoon dix yu mel na yor yow waxuma la jël réew mi Sénégal kese mais mën na jiite Afrique gi yëpp Birima Ndiaye baax nga mën nga sa nit xam nga ni nga koy jàppale ñi doon yëngal yëpp toj nga seen lëfal ndey cey Birima billaay yaa wóor Amadou Ba nag ñëpp a kontaan yow gi yëpp lu mat lu mat quatre cent personne wala cinq cent personne nga recevoir leen média yeeg site yeeg bàyyiwoo kenn étudiant yeeg président Amadou Ba yaa baax ci réew mi dundal waay loo wax gaynde waa di kontaan Adamo ci ki nga xam ne mooy Birima borom TFM jàmbaar la Birima diggante ma euh, président Amadou Ba man kenn du ko nettali. parce que Birima saa yi ñu génnee tournée ak président Amadou Ba lii di añ